alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa usikum wa nafsi bi taqwallah قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ay yéen mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala di ko ñaan mu julli suñu yeneen ba julli ci njabootam ak sahabaam ak ñi ko nangoo roy ba ila yawmi diin maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla sunu borom nee na ay yéen ñi gëm na ngeen ma ragal ni ma yeeyoo ñu ragal ma ko te mooy def ay ndigalam bàyyi ay tereem te bu leen dee lu dul da ngeen a jébbalul seen borom ay yéen mbokk julit ñu ngi nii jóge ci jaamu yàlla gori goo xam ni ña ca demoon ñi ngi leen di teeru yal na yàlla matal leen ñoom ñépp ñu nibbi seeni kër ci jàmm yal na yàlla nangul leen seen acc mboolem tuyaaba juñ fa jëli ak ñaan ya yal na yàlla boole ko mbooli mi julit doonte ne mbokk yonent bi alayhi salaam benn acc la acc ajam googee ba mu tajajeeg julit ñi dajale na leen ñoom ñépp xutba leen xutba boo xam ne xamal na leen ca lan mooy seen warugar seen digganteeg seen borom lan mooy seen warugar seen digganteeg seeni moroom luy war a tax ñu am jàmmi àdduna am jàmmi allaxira ba yonent bi faatoo ba tey xalifaam yi nga xam ne ñoo ko wuutu doon jiite aj makka at gu nekk daan dajale jullit ña ca arafat daa di leen di waar loolu musul dagg ba ki nga xam ne moo ko doon taxawe at yu mujj yi di Abdul Aziz ibn Abdullah Ali Cheikh hafizahullah nga xam ne mooy muftil am ba Arabie Saoudite fanweeri at ak juróom yi passé yépp moo ko doon jiite ba atum ren mi kattanam mayu ko mu taxewe ko mi ngeeg armalam naaw naam teew ca jàkka Arafat waaye ki nga xam ne mooy Abdurahman as-Sudaysi ak ki nga xam ne mooy imaamu masjidul haram moo mujj jiite at googee xutba fa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon xutba loolee mokk daa waroon mbooleem ñi dem Makka déglu xutba boobee suñu delloo ci seen njaboot ñu jottali leen la nga xam ne moom lañ fa jële waaye xam nañ ne xutba boobu du yegg ca ñu bëri ca ñoom ñu bëri ca ñoom ba mu ko yeggee arab la ko doon wax dégguñu ko looloo tax ba at mu nekk insha allah ñii barkeeloo fàttaliku xutba ba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xutba woon na ko ay sahabaam te ba mu koy xutba ay sahabaam mi ngi ñu ko doon xutba mi ngi ko doon xutba waa Amérique mi ngi koy xutba nit ñi ba ila yawmi din xutba boobu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu koy tàmbali daf ne nit ñi déglu leen ma bu baax ndax xawma ndax danaa ma masa daje ci ak yéen ci place bu mel nii wax ju mel noonu heure bu ko masaan wax sahaaba yi dañuy xam ne lii mooy la ca mujj sahaaba ya boole seen jooy ya ak di ko déglu sallallahu alayhi wa sallam te nam ko waxe woon bis boobu mu taxaw arafa di xutba julit ñi tegu ca lu mat ñetti weer daal di wuy ji boroomam subhanahu wa taala mbokk yonent boobu gis nañu ne ca xutbaam bu màgg boobee bokk na lam jëkk a moytulu nit ñi ca mooy la gën a màgg lu doomu aadama yi moytu ci kaw suuf ca mooy la nga xam ne mooy bokkaale borom bi subhanahu wa taala kaaba googu yàlla taxawulu ko ak makka yàlla yoonulu ko yàlla taxawulul asamaan ak suuf julli koor yàlla yoo yoonulu ko lu dul jubluwaay ba gën a màgg ci loolu mooy nit ñi xam lan mooy maana la ilaha illa allah ñu xam ne yàlla rek lañu war a jaamu su ko defee loolee lépp lu koy yàq nañ ko moytu képp koo xam ne ma ngay woote woone daa xam xëybu kookee ma ngay taxaw place yàlla képp ku jiñ nit ki ne moom kat xam ne xëybu ma ngi koy teg place yàlla képp koo xam ne yaa ngi màggal doomu aadama ba jàpp ne xam na lépp loo xam ne yàlla mi ngi koy xam wala mën na teew foo foo xam ne yàlla rek a fa am kattan ku mel noonu yaa ngi koy bokkaari donte ne ne képp ku jàpp ne keneen ku dul yàlla mën na ko xetti li adduna ak alaxira ku mel noonu mi ngi bokkaale boromam subhanahu wa taala waaye mbokk ci xutba bu màgg boobu sunu yonent salallahu alayhi wa sallam mu ne ay yéen nit ñi xam leen ne day seen deret araam na ngeen di ko tuuranti seeni der araam na ngeen di ko yàqante comme ni mu araamee ci seen bisu tey bi ci seen weeru tey bi ci dëkk bu tedd bi di makka xam leen ne du dagan juri tuur deretu mbokk juritam xanaa lu dul koo xam ne dafa rey nit wala koo xam ne dafa am jëkkër wala am jabar ba pare di njaaloo wala koo xam ne dafa génn diine lislaam mbokk loolu day doon musiba ci xeet moo tax suñu borom yàlla tëral daaji ne képp koo xam ne rey na nit ca moo ko tey ngalla waay su ngeen bëggee am dund gu dal gu teey yéen borom xam-xam yi tëral leen ku rey nit nañ ko rey ngallawaay yéen mbokk julit yépp xam leen borom asamaan ak suuf bi ñu moom moom président de la république moom tous les magistrats daf ne ki rey nit fekk moo ko tey ki mel nii dañ koo war a rey lu dul mbokk ñañ reyal ñoo dëppoo baal ko loolu na ngeen ko xam bu baax gannaaw loolu suñu borom ne képp ku sàcc alali nit na doon góor la wala jigéen la ku mel noonu dagg leen loxoom di loi boo xam ne ca yàlla la jóge suñu borom jalla wa ala ne nakaala min allah loi la bu jóge ci yàlla du dëgal moo ko tëral wala keneen ci jaami yàlla yi loolu itamit doon loo xam ne ngalawaay mbooli mi julit bàyyi leen ci xel bu baax sunu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam gis nañu suñu borom yàlla ba mu àddoo ci téeréem ne képp ku njaaloo duma leen ko téeméeri yar góor la wala jigéen loolee yonenti baa ñu leeral ne yàlla ngi ci jublu ku masuta sëy waaye képp koo xam ne mas naa sëy ànd ak borom këram wala ànd ak soxnaam ba pare wëlbatu ko njaaloo kookee dañ koo war a dóor ay xeer ba mu faatu e yéen mbokk julit diine lislaam mi ngi ñëw ngir daal di tëral jàmm bu julit di war a am ci bakkanam waaye jàmm buy nar a am ci société bi mu tëral yoon yu nit ñi di juboo indi mbaax ak ñekk gu mu farataal diggante doom yi ak seeni wayjur diggante borom kër yi ak seeni soxna diggante dëkkandoo yi ak seen moromi dëkkandoo diggante ñi am ak ñi nga xam ne dañoo ñàkk mu bokk ci loolu mbokk julit islam araamal na ñuy suufeel ab julit wala di ko toroxal na doon ci kanamam la wala dafay nekkul mu xaraamal ñu daal di koy jëw même bu doon te ne waajoo ji dafa doon waaju saggan ci diine benn waaye ngi doon naan sangara ñu indi ko ci yonent bi duma ko te képp kuy naan sangara dañ laa war a duma la ca lislaam mujj tëral mooy juróom ñett fukki yar lañ la war a duma ñu toog ay temps ñu indiwaat ko ñu dumawaat ko am kenn ci sahaaba yi daal di ne kii daal yal na yàlla rëbb ko man na jamono ju ne ñu koy indi ñu koy duma yonent bi alei salaam ne ay waay déedéet laa talanuuhu fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibu allaha wa rasula bu leen ko rëbb waay man xam naa ne ku bëgg yàlla la bëgg yonent yàlla mbokk gis ngeen kon ko mel nii même ñi nga xam ne dañuy def ay bakkaar dañ leen war a laayi biir ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala jubanti leen waaye nga la waay mbokk julit xamal ne islam dafa sàmm julit bi ñu warmaal ko fonk ko màggal ko même bu mu faatoo looloo tax mu nekk farata ci julit ñi waxuma ci ay mbokkam de mu nekk farata ci julit ñi heure bu benn mbokk julit faatoo ñu daal di koy jël daal di koy sang ba mu set suturaal ko muural ko awraam dajaloo jullee ko ñaanal ko yàlla baal koy bakkaaram tabbal ko la nga xam ne muy aljanna loolee farata la bu yàlla gàll société bi maa ngi ciy profito yéen ñépp xam ngeen ne aka bari suñu hôpitaux yi ñoo xam ne ñoo fay faato te amuñu mbokk ñu leen taxawu dañ leen daan jël di leen suul rek comme ni ñuy suule ay kañe def ci ay mbuus yu bari gas moom xóot suul leen waaye falilahi alhamd am na ay mbokk yoo xam ne ci ñetti a ñeenti at yi ñu nekk ñi ngi takku taxaw hôpital bu am ay néew woo leen ñu ñëw taxaw leen ni ñuy taxawoo seeni ndey wala seeni baay yu dee woon rafetal seen sang rafetal seen kiraay dimanche bii di ñëw ñi ngi war a dem hôpital citéo war faa jëli ay néew su ko defee ñay bëgg a fekke taxawu boobu huit heures la ñuy dem citéo ñi nga xam ne seen tànk jotewu fa ku dem dix heures yi demi armée lu yoof da nga gis néew yooyu ñu indi foofu nga xam ne mën na am sa mbokk ma nga ca kenn xamu leen loolee da ngay gis bokk na loo xam ne taxawaay bu julit ñi war a taxaw kon mbokk lislaam mi ngi nii xatta ay néew lañ leen war a maal yeneen ci bàyyi lislaam ne laa tasubbu l amwaat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu képp ku xis ba dee bu leen nekk ci di ko rëbb ndax lépp lu mënoon a nekke moom ma nga ca bu dee lu baax la ma nga ca bu dee lu bon la yàlla nga koy mbugal kon jaratul nga di ko rëbb waaye mbokk bokk na ci xutba bu mag boobu yonent bi alayhi salaam xutba boon sahaaba ya mooy moytuloo leen la nga xam ne mooy riba riba boobu nga xam ne su maam yi bañoon nañ ko mais bi tubaab bi ñëwee daa di koy taaral ni mu taarale carte bu jëkk carte kat kenn daawu ko may jabar waaye xoolal keski pime yi ni mu tasaaroo léegi defatuñ ko muy dara gannaaw ba it la nga xam ne mooy riba boobu ana tey ñaati intellectuel ñoo mucc ci prêt bancaire prêt boo xam ne da ngay dem ñu lebal la deux à trois millions boo koy fay da ci teg cinq cent mille ngal la waaye mbokk loolu xam nañ ñëpp dafa haram julit warul dugg ci loolu julit waroo dem nekk ay actionnaire ci ay banque yoo xam ne da ngeen di liggéeye di dajale ay riba yonente bi alayhi salatu wassalam bam ko moytaloo sunu borom yàlla abduna ci loolu daa di ne ñi nga xam ne dañuy lekk riba day suñu bàyyiwul fa'zanu bi harbin min allahi wa rasuli waajal leen guerre boo xam ne yàllaa leen ko déclaré ak yonent yàlla ngal la waay mbokk riba kon lu bon la riba musiba la bàyyi leen ko sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam ci xutbaam bu mag boobu nee na ay yéen nit ñi xam leen ne benn bàyyi ngeen am naam kay mën na fëgg dënnam naan man tooro de pire la kay naan bambare pire la arab bi xeeb ku ñuul wala ku weex xeeb ku xool yonent bi alayhi salaam ne déedéet yéen ñëpp benn bàyyi ngeen bokk benn yaay ngeen bokk muy aadama ak xawa xam leen ne ku xonq gënul ku ñuul ku weex gënul ku jaune doomu aadama yi ñi ngi gënantee ca la nga xam ne mooy ragal yàlla heure bu mosaan dégg koo xam ne day fëgg dënnam di fàttaliku ca saanam lum daan wax mooy da'uha fa innaha muntina ay waay ngalla waay bàyyi leen di bakkoo seen famille yi ngeen bokk loolu dafa xasaw mi ngi noonu noonu la ko yonent bi alei salaam waxee mooy mbolom bu ngeen ko xamoon lu bon lu xasaw la doomu aadama di bakku lan lay bakkoo mooy maam yam ca saanoo ndax loolu yaa ko sabab déedéet kii ngay xeeb ngir maam yam ca saanoo ndax moom moo ko sabab déedéet moo tax mu ne bàyyi leen ko loolu dafa xasaw ay yéen mbokk julit xam leen ne ci xutba yonente boobu salallahu alayhi wa sallam gis nañu ne waxoon na ci ne ay yéen nit ñi ragal leen yàlla ci jigéen ñi ay yéen góor ñi xam leen ne jigéen ñi da ngay leen a jël ci kóolu teg yàlla yàlla subhanahu wa taala moo dogal yow góor mu jox la jigéen nga doon koo xam ne kilifaam nga mu bàyyi ay waajuram fekk si la ngan la waaye na ngeen ragal yàlla ci jigéen ñooñee yonent bi alayhi salaam ñaax leen ci ne yàlla da leen a jox ay aq sunu borom yàlla teral jigéen na doon ab jànq la sunu borom yàlla sàmm ko teral ko soxna la sunu borom yàlla sàmm ko teral ko bu nekkee yaay moom waxi noppi borom bi araamal benn góor di xool jigéenu jàmbur ci xool boo xamee ni nii dafa safaanoo ak la yàlla subhanahu wa taala wane ci moom borom xam-xam yi ci gën a tolérant da mooy kanam nga ak ak loxo yi mi takk montre jëm suuf yàlla mi tere ñu xool ko kon laal ko ci lu dul ak moom waxi nappi wax naa leen fii sànq la nga xamee ni moom lay islam tëral te ka nga xam ne mooy dem di njaalo rawatina ka nga xam ne nag mooy dem di violé gannaaw loolu mbokk jurit islam moomu yemale jigéen ci àq ya nga xam ne mooy àqi jaamu yàlla gannaaw bi doomu aadama yi avant l'islam suñ fay doon jigéen sunu borom ne déedéet wali rijaali nasibu mimma ktasabu wali nisaai nasibu mimma ktasabna góor ak jigéen yépp a yem la yàlla yi fay góor ci julli di ko fay ca koor di ko fay aj makka lu tol noonu rek lay fay jigéen bu dee rafetal na jaamu yàllaam ay yéen mbokk julit sunu yeneen sallallahu alayhi wa sallam ci xutba tàggatoom boobu mu doon tàggu xeet bi xamal na leen ne bàyyi naa leen nag mbir yoo xam ne tànk yéen a ngi ci moy du ngeen réer abadan ca mooy téere bu yàlla bi ak sunnaam bi nga xamee ni nii moo koy leeral ay mbokk julit xamal ne nit ki gën a mat nit ki gën a civilisé ci kaw suuf mooy ki nga xam ne xam ne tiire bi yàlla bi gëm ko di ko dund inna hada alquran yahdi lillati hiya aqwam téere bi yàlla boobu moo ñuy won nu ñuy jëflante suñuy biir téere yàlla boobu moo ñu jàngal nu ñuy war a attewoo suñu biir téere yàlla boobu moo ñuy jàngal jukko ya gën a rafet moo ñuy indil relation nam gën a baaxe ba jàmm am sunu borom yàlla garantil nañu ne dëkk bi day bu ñu nangoo ne gëm yàlla tënku ci téere bi yàlla bi danaa leen ubbil barkay asamaan ak barkay suuf donc bépp redressement économique boo xam ne ay gouvernement ñi ngi koy def bépp planification bu ay gouvernement ji def ay yéen ñi jiite gouvernement xam leen dara gunu caa gaaw mooy xeet bi gëm yàlla déggal borom bi subhanahu wa taala su ko defee yàlla ubbil leen barkay asamaan ak barkay suuf mbokk bokk na loo xam ne yeneen ci baale salaam waxoon na ko ci xutbam bu màgg boobu mu ne nga la waay bu ma fi jóge mukk ngeen nekk di rayante seen gannaaw mbokk rayante gannaaw yeneen ci baale salaam ak jiwoo bu mu mën a doon sabab ba du dara lu dul nit ñi won gannaaw alquranul karim am feneen fu ñuy tànqi na nga xam ne muy ndigalu diine moo tax ma samba jàpp ne lam yor moo gën lépp ma demba jàpp ne lam yor moo gën lépp juyoo daal di am ci doomu aadama yi loolee mujj jur ay rayante amma bu nit ñépp yemoon ci ne benn yàlla la ñu am benn yonent la ñu am benn téere la ñu am benn balluwaay la ñu am su ko defee kon mbokk loolee jàmm day yomb ci seen biir loolee mbokk la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax daa di tëje xutbam ba nag ay yéen sahaaba yi suñ dajee yowm alqiyaama day yàlla dana leen laaj ci man lan ngeen nar a tontu yàlla bu leen laajee lan laa def ak yéen sunu borom mu ne wala nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin ku ma masa yónni ci ñëw yonent dinaa la laaj donte ne danaa laaj yonent yi sahaaba yi daal di àndandoo daal ne ko ay yëmi yàlla yónni ñun day nashhadu annaka qad ballagta risalati rabbik wa addayta wa nassahta am lil umma wa qadayta alladi alayk lépp lu la yàlla joxoon gëm nañu ne yow mi yàlla yónni jottali nga ñu ko yemoo ci jottali ko waaye laaye nga ñu biir xamal nga ñu nu ñuy def ba am ngërëmal yàlla xamal nga ñu fu ñuy jaar ba mucc ci mbugalam yenent bi yëkkati baaraamam ba xool kaw asamaan daa di ne ay yàlla allahuma ashhad allahuma ashhad ay yàlla seedeel li ay yàlla seedeel li mbokk loolu di la won ne yàlla mi ñuy jaamu mi ngi ci kaw asamaan yi képp ku la bëgg a gëmloo ne la yàlla ngi fépp kookee dala bëgg a dugal ci ak lëndam dugal la ci ak cankute am na ñoo xam ne ñooy contraire ñooñu ñoom dañ ne yàlla nekkul fenn ndax yàlla moo jiitu makkaan ko nekkul fenn loolu lépp dalal la ci kaw dalal yow julit gëmal ne yàlla bi ngay jaamu ma nga ci kaw asamaan nga ci kaw arasham ba nga xam ne moo nekk ci kaw asamaan yi yàlla moom nga xam ne bu la yàlla yóbboo yowmal qiyaama dañ ko gis moo tax mu ne a amintum man fi sama an yaxsifa bikum l arda fa ida hiya tamur ndax ragal ngeen ko nekk ci kaw asamaan yi xar suuf fekk mi ngi yëngatu ngir seeni bakkaar kon mbokk julit lii mooy adub tàggatoo ga ba nga xamee ni nii yonent bi alayhi salatu wasalaam wax na ko ba pare daf ne nag gannaaw lii bu ma fi jógee yéen ñépp jottali leen ku nekk na jottali li mu dégg ci man loolu moo tax sahabatul kiram soo leen recensé recensé woon ñu nekk plus d'un ay cent à deux cent mille ñu waroon yonent bi boo xoolee seeni bàmmeel ñee nga iraq ñee nga iran ñee nga sidi ñee nga feneen ay ñoom ñépp dañoo tasaaroo ci kaw suuf di jàngale diine yàlla ji di ko leeral lii mbokk kon muy diine yàlla wàcce ci kaw yonent bi ca taxawaay boobu mu taxaw al yawma akmaltu lakum diinakum bis na ko tey matal naa seen diine wa atmamtu alaykum nicmati mottali naa samay xéewal ci yéen wa raditu lakum lislaama diina gërëm naa lislaam nekk seen diine lu nekkul woon diina bi si keroog dootul nekk diina ba ila yumi diin yeneen ci baal islam jottali na lépp luy ngërëmal yàlla sahabatul kiram jottali nañ lépp lu yeneen ci bi jottali woon ñun lenn dong moo ñu desee mooy gëm ca jëfe lenn dong moo ñu dese mooy gëm ca jëfe gëm lan gëm la ñu sahaaba yi toxale jële ci yeneen kibaar yi sat wasalaam jëfe ceel sunu kéemtalaali kattan ca yàlla tax yàlla miy dëppale ngërëmam ku ko neex yal na yàlla subhanahu wa taala dëppale ñoom ngërëmam àdduna ak alaxira yal na yàlla fayal ñu sunu yenente salallahu alayhi wa sallam yal na ñu yàlla boole ñu gëm lam bëggoon ñu gëm ko ca mu jóge ca moom yal na ñu yàlla boole ña ko topp boobaa ànd ak moom tabbi firdawsil aala yal na yàlla wàcce jàmm suñu réew yal na ko wàcce ci mboole mi réew yi jëlit yi nga xam ne dañu nekk ci fitna yal na yàlla ubbil ñu ay bunti xéewalam yal na yàlla ubbil bunti yërmandeem yal na yàlla rafetal suñu mucc te defal ñu njaboot bu barkeel guy jaamu yàlla suñu gannaaw boole ñoom ñoom ñu dëkk ci àjjana yu kawe ya اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين